ñu noonu mbokki internetu Dakar Buzz ba tey ñu ngi toog ak kenn ku nga xamante ni ci moom la bokk muy Oumou aaw bi nga xamante ni dafa dawoon après bu ñëwaat <laughs> moom la ñu ñu ngi leen nuyu. wax naa la damay bañ lool man aaw ba tey de xale yi dama leen a may rek ñu jël ay numéro loolu ça ne que ñoom eh. ay aaw ak ñaareel leen bàyyi rek ñoom ñu jël ay numéro 1 2 ma nekk 3 man maay seen mag am benn problème. <laughs> da ngaa def fu mag kilifa. <laughs> voilà damaa def fu kilifa aaw yaay. satin noir gis naa sa bos. kan moo lay jaay diw maam Ndiaye sa <laughs> man karité laay diwoo. <laughs> ah maam Ndiaye du jaay karité. ah man man karité laay diwoo te meeru dëkk nekk Mali moom koy jaay. moom ay karité yu baax lay jaay moom tamit ñu koy nuyu ndax da lay fal de. <laughs> ay karité yu baax lay jaay moom tamit ay ca mi ngi doon umu euh, ñu fekk la tey fii ci Grand Théâtre ngeen woote seen ngénte euh, sénégalais yëpp ñëw wuy si leen ban yëg-yëg nga am macha allah kontaan man c'est la première fois may def théâtre su scène c'est la première fois mën naa ne c'est grâce à Polygame te ni ma gisee salle bi nii xam naa ne macha allah am na ñu bëri ñu bëgg a xam ñu bëgg a gis loolu lekk kontaan naa ci même su ma yéegul sax man baax na kon yàggoo ci aar bi Euh, deux ans rek laa ci def ndax man styliste laa du ma léegi laay commencé doon comédienne parce que man styliste laa woon. Euh, naka nga def ba dugg biir polygame. en fait mën naa ne polygame famille la parce que ñi fi nekk ñëpp xamante ñi ñoo bokkoñ ñi ñoo nekk ñi fi nekk ñëpp xamante polygame famille la donc ñoom ba ñu defee seen mbir kuñ ci sentir rek woo nañ la. ñu ci mel ni man si temps euh, kuñ ci sentir rek woo nañ la xam ne yow am nga ci rôle te jàpp nañ ne rôle bi ñu la jox di nga ko doxal matal ko. loolu moo ma dugal polygame te jàpp naa ne xëy na leen teg sama loxo def naa sama kéemtalaay kattan ba def ba ba sama war daal. Euh, biñ la woowee mooy série bi nga njëkk a joué. Euh, non tourné naa yeneen série tourné naa ay Guèye ak mbay am naa aussi yenn séquence ci yenn série <laughs> kon jafewul woon pour nga pour nga ñëw rek bokk. non non jafewul woon <laughs> déedéet. Euh, <laughs> fi. loolu luus na de. mi fi daal. non non xam amoo dangay ngay wax sénégalais ne amoo. dama gaa yi ñëw. dama la gaa yi temps yi noir la ñuy wër. <laughs> dama la ne ko lam. ah non non lam mais. aw moom moom wax dëgg yàlla macha allah mais xëy na mi ngi ci yoon bi di ñëw. lan ngay xaar. fa jaar ci péage mi ngi ñëw mi ngi mi ngi dañee guichet bi day fay rek ñëw. non non mi moom comme amoo mën nañ jàpp ne kenn nekku fi kan mooy fëg <laughs> waxal ma gars yi kuy fëgg. kenn fëggul maa ngi nii toog. <laughs> di xaar yàlla di xaar yàlla. jeex na kon boo ñëw leen gaaw dal ci kawam est-ce que yaa ngi am ay euh, retour ci ci ci ci sa rôle bi. bu baax bu baax des fois nit romb ma saagam romb umme ma xool ko mu dagg ma saaga damay xam ni saagawul umm bi parce que xamuma umm bi mu saaga mooy umm bi nekk ci polygame damay xam ne rôle baa jàll moo tax ma laal ko moom moo tax mu saaga ma damay reetaan rek dem. Umm, des fois ma romb nit ne ma pourtant ni nga mel noonu laa mel sama jëkkër bëgg na ma waaye damaa woy dama ëppal damaa lii. ma ree rek noppi. Mm-hmm. sa jëkkër tey di takk ay yeneen jabar rek di teg sa kaw. Mm-hmm. waa dama doon bañ wujj far yàlla ma ñëw nekk ñetteel <laughs> nga tamit problème bi loolu dama doon bañ wujj faat ki na ñëw may xeex di xuloo léegi bu fase ma ma ñëw fekkaat fa Amina muy ñaar te digg naa for naa ci weewu béykat mi ngi labat beneen muy ñeent. mais su ko defee sax nag ñëpp noppal ñu xam ne matal na est-ce que ki Kiné yomb na jouer macha allah nekk artiste bi nga xamante ne yàgg na ci mbir mi mais ñu bari léeg-léeg waxam day wax lu xam ne yow doo xalaat sax ne lii li li li lii wax la kaay nag mu wax la Fatou ne ba mu ñëwee polygame ba tey des fois moom moo ma jox texte bi ñu ma joxee sujet ne ma lii ngay développé mu ne ma umm doolu ci lii wax ma lii ma wax la lii dem naa ba léegi man sax maa ngi xaw a niroog Fatou Kiné ndax jox ko maa jor jokk leen bi may def ak moom dafa neex mu doon tamit nit ku simple nit ku baax nit ku laabir ko xam ne li mu yor macha allah nëbb ko. Euh, yan conseil ngay jox xale yi nga xamante ne ñu ngi nekk ay xale euh, di sëy ak mag comme diggante Ndeye Ndiaye ak euh, borom këram. Ah! yow rek tas tas seen kër gi tasar <laughs> non loolu moom dafa nekk loo xam ne dañ ñuy dund ak moom parce que ñàkkul am na ci kër yi macha allah mais ku jigéen ki boo amee yenn jëkkër mag yi yow yaay xam rek ni ngay comporté woo ak moom. ndax moom bëgg na la ba takk la ba indi la doo moroomu doomam du doomam ngay defanteel yaayam aussi doo defanteeg moom ouvertement ba ñëpp xam ni kii xam nga doom boo defanteeg yaayam ci kanamam mu yëngu. Mm-hmm. waaw te sëy ak mag moom mënta ñàkk. Mm-hmm. waaw parce que fii lañ ko fekk. d'accord lu dara tamit dara newu ci. Euh, naka nga gisee léeg-léeg ngay joué ba mu yàgg am ak gars yi problème rek ñu rey la wala ñu génnee la parce que instant bi nga xamante ni toog nañ gisatuñu la ñu bari ñu nga doon ñu ngi ñu ngi doon wax naan da nga yëg succès ñu dàq la. non man en fait nee naa la sànq styliste la instant bi ñu bi ñu toog gisuñu ma polygame maa ngi woon ci samay événement wu bopp même décembre bi récemment rek maa ngi woon Cap Skirring def naa fa 20 jours 20 jours nga loolu dafa yàgg ci tournage man suñu ma man man su ngeen ma gisil polygame rek parce que maa ngi ci sama liggéey dama dama am dama am atelier de couture damay def ay événement damay def ay défilé de mode li may déplacé wu dafa bari mais ma am ak polygame benn problème fay bi nag. Hmm? léeg-léeg ñu gis gars yi yéene na fay ñu ma waaw mais ñaareel sax balaa ñu koy mën a wax série bi jeex est-ce que yéen ñu leen di fay nag. man moom salarié laa weer bu dee ma laal sama enveloppe bu duun. Mhm. weer bu dee ñu laal suñu enveloppe yu duun macha allah tàllal ba caaka njaay. ma maa ko toogaatee ci kanam kanam ñëw ne fay ñu leen. je laal suñu enveloppe ñoo xam ne moom. boo si ne marché bi tas tàllal nag ba caaka jaay ñu dañuy fayee ko. naka ngeen di dundee ak euh, tonton Vieux Ba nga xam ne mag la ne nekk di jouer ak yéen. Vieux Ba moom polygame boole wuñu Vieux Ba astu ñoom bukkunta man presque polygame ña fa nekk ñëpp maanaam tournage bi boole wuñu ku ci mel ni astu kooku xam naa ko lu yàgg yàgg yàgg avant polygame di commencer déjà maak moom dañu am trait dañu xaw a nuroo moo tax ñu xamante woon lu yàgg avant polygame kon awma problème pour di wax ak koo xam ni maanaam xam naa ko xam na ma. Euh, yan conseil ngay jox xale yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi diw ndax teint noir sax gars yi dafa xew gars yi ngi génn ñoom it di di di di def seen wàll ci TikTok bi waaye yan conseil ngay jox xale yi. ah man day man man umu dama am une association des femmes jamono noir de dépigmentation. waxuma kenn nag bul xeesal mais man diwuma diwuluwuma man loolu man la diwuma diwuluwuma sama karité bee ma sangu ba set moom lay diwu tëdd ñu bari dañuy wax ne boo lëndamee ba boo ñuulee boo demee doo fës wala doo feeñ ñu xees ñi lañuy gën a gis. tubaab preuve la bëgg xool ma. tubaab tubaab preuve la bëgg. maa ngi nii yaa ngi nii di. waaw am na lan moo la dem ci ñun. moo ma lan moo leerul ci ñun. moo ma jaaxal ah, dëkk na. ñuul ba faaw. ma foo ne. alxuraan dafa ñuul kaa bëgg ñuul. bul xeesal. <laughs> maa ngi lay jaajëfal. d'accord chérie kontaan naa bu baax a baax. merci beaucoup. <laughs> ñu noonu mbokki internet Dakar Buzz comme niñ leen ko waxee ba tey ñu taxaw uh, suñu grand bu baax macha allah muy daam seen borom Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar daam la taxawal daam nag fu mu nekk ak ci lu mu nekk xëy na tey dinañu ko wax ndax daam kenn mënu koo jot téléphone daam kenn mënu koo gis léeg ñu ne la mi ngi Paris léeg-léeg ñu ne mi ngi Amérique tey na waar daam ñu ngi leen nuyu léeg ñu ne la mi ngi jawbe di jënd tiir nekk ci marché luuma yi di ay tuppenkum ak fu dugg fa. li ko gis du tuppentum de tuppentum xaw ma xaw ma. kuppantum kuppentum coupé ku xam na ni coupé. gis naa leen baax na. Euh, daam daam nee na waa kumpantum waa jawbe waa waa bundu waa kunkande ñu ngi leen di nuyu. xam kañe bu sàccee sa beñe bu ko poñee. danga koy koñe ba mu sañ nga jox waa Farafeñe li ma la mën a xamal mooy laal la mooy lal te mooy laal li kon laal laa ngi nii. bañ na ko ba dafa ñëw grand théâtre xoolal génn ay spaghetti nii xoolal xoolal spaghetti yi <laughs> juróomi spaghetti yi deux la wàcce <laughs> mel ni ku génne ci may ka ba kenn du laal mais laal la tey dama kontaan pour jàkkaarloog yow ndax yow da ngay sama jigéen nekk nit koo xam ni jàkkaarloog yow damay yokk inspiration moo tax ma lay ñaan yàlla jàmmal la. dégg naa nag fa yee daam ah, mi ngi noonu léegi nag euh, bu bu ko defee euh, bu ko defee waaw daam <laughs> noppi naa bul déglu seytaane yi dañ dañ ma yàq ñi dañ ma yàq samay noonu lañ ayca <laughs> mi ngi noonu ban yëg-yëg nga am tey waa Thiès woote xanaa yëg yëg bi ma am mooy ba may yëgee ci oto ñëw ba Grand Théâtre mu leer ma ni ñi fi fekk samay nawle samay mbokk ay Thiès waa comme man muy waa polygame moo tax tey ma yaru poli xam nga Lalla dafa am loo xam ne domp sax sot la bokk ndax ku wedd laajal ndox ba mu naan day def appui avant suuf ni ko ba wàcc ma lay naan ba suuf dee dosé ngelaw ni ko réglé ndax fa ma la fekk déplacé la xam nga tey dañuy jaay nit ki naan ko danga ngaa aay mu jaay neex tànk ah yàlla ni ko wax dëgg yàlla sa neex tànk kooku de bu ma yóbboo fa ma yóbbu pëlee borom mil bii di nga réglé kon nag Lalla yoon la Thiès woote Cees waaye ñu seen leen fii tey vraiment sama xol dafa sedd ba ma ñëwee si bi tey maanaam amoon naa tuuti mer ndax dama gis salle bi xaw a am ay tuuti siège yoo xam ne tooguñu ci fees na nag mais dafa waroon fees dell autorité yi waroon ci jàpp ñëw jàppale Cees waay yi boo xoolee tey kaas naa ko fu ne mbëru Cees sax dañu ñëw Dakar si meeku nga defee ni ay ñoom likki-lik ñoo ñëw ndax dañuy yooy ay fonde la ñu naan lekk ci may ga yi mbëru Cees boo gis mu lekk fruit ndiir la yey ndiir xam nga ndiir du fruit mbaa kew ma tamit am na yoo xam ne laal dafa neexul am ay autorités yoo xam day leen ni àdduna li ñu téye ci dëkk bi tey seen yeneen morom sax téyewuñu ko ñu war a jàppale seen i doom di leen seetaan c'est pas normal tey jii bu ñu yëkkate woon ku ci nekk cent million sax doyul dañoo waroon duy grand théâtre ba am na ñoo xam dañ naan ñii dugguñu tey Thiès am na ñu bëggoon ñëw amuñu paas oto bi da koy fay boo dikkee fii dangay ngay fay xam nga ma bëggoon nag. ñuy jàpp ci affaire yi man day yàlla ngi may jàppale ku ma jàppale maa ngi leen ma organiser woo leen te nag pour ñu wuy si la mooy problème te bu keneen duggoon Thiès tey jii di fa tëgg tey ñooy sol costume yu yi ñoom génn taxaw jël ay micro di wax di jël ay parole ak di dem a influencer nit ñi. dañ leen xeeb daal. man ku ma xeeb ma xeeb la man taaliba Serigne Saliou Touré laa man dama keer loolu laal xam lu ma la mën a xam mooy ñoom ñooy ñëw dakaar gi autorité sol ay blouson ndax xam nañu Dakar ñoo leen gën a dee foofu ñoo leen gën a tengale bu ñëwee cees nag ñun defe ne ay ngaaka lañu ah di jaay complexé sol ay costume xoju ba fii xool ay nœud papillon kañ nga ko gëj gis ku ñëwati Thiès ba takk ko fa di nga xam doo too ko dolli bu leen ñu indil ay problème jàppale leen ñu man su may wax ñëpp laay waxaaleel parce que du artiste yëpp mën a wax man nee na damay kaas rek c'est normal artiste la te yéen maanaam te kenn mënta def dara génn ci culture nañu waxante dëgg. te Thiès lépp nga fa sàccu Thiès sax a dàq sàcc yeneen ré sàcc yeneen région yi yow triant wu Thiès moo gën a triant yeneen triant wu région yi mais xoolal loolu la la nga am ko yow façon wala façon nu ñu koy waxeeti façon professionnel bu ne ci lu ne nag. waaw sàcc dañoo aay. waay sàccu yi deux doigts bu la coppatee yow sax da ngay demaale. <laughs> mën na laa yóbbu sax doo xam ne yóbbu nañ la nga demal sa nga nekk fekk coppati nañ la sa kër yóbbu fa la soxlaa ñoom mais doo dégg. ci maquette ma moo tax Thiès nga fa xam ni ñun bañu amee sëñ Saliou Touré am lépp kon nag yàlla fi yàgg te wér sëriñ Saliou na fi yàgg te wér sama yaay moom maa ngi ko gërëm bu baax baax a baax ndax bu dul du ma mën a taxaw di wax ci micro yi micro yi da nga ci wax ba mu yàgg nga defa ni pain au lait la nga nar cee xamp ku moytul micro yi di nga wax ba wax lu la jàppee lii maa la ko wax. d'accord Maguette Mané ñu ngi leen di nuyu lu bëree bëri noon la amee ñu jub te mën a jaay nag ñu ngi leen di bëggee yéen waa moo raw Maguette Colobane ak ak bàyyi wu ñu fenn ayca mi ngi noonu mais daam euh, sànq wax nga ko da nga ñëw ci euh, ñenn ñi dal leen ba pare mais artistes tamit ñu bëri gisuñu leen fi. waaw man sànq ba léegi loolu lay dégg man li ma jaaxal mooy lan moo tax ñëwuñu dañ leen koy yëgalul wala maanaam mën nañ am jot mën nañ ñàkk jot xam nga tey programme dañu bëri am na ñoo xam ne li leen téye mooy dañu am programme ba pare amuñ jot wala nekk ñu fi mën na nekk nit du gaaw a ŋàññi nit ñoo xam nag lu tax ñu toog wala ñoo xam lu tax ñëwuñu man wax dëgg yàlla mënu maa nekk sama place nekk place keneen ak keneen képp ku ñëwul nan la laaj lu tax ñëwoo nga ni lii moo tax ñëwuma dama lay wax duma waxal kenn. ndax ku ci nekk yor nga làmmiñ boo waxee. mais rek da ngay kaasal ñëpp. waaw ñëpp ci maanaam wàllu jàppale laay wax wàllu jàppale laay kaasale ñëpp mais tey lu ma ni grand théâtre tey waa polygame ñëw fi képp ku jàppul waroon gaa ñëw man nag bu doon man la man mu ñàkk jom mi même boo ma invité wul dinaa ñëw laa wax rusloo la nee comme invité wu ma te ñu bokk suñu dëkk bee bokk li ñu def te lépp di benn te kat li ma ci metti mooy ku ci toog soleil levant yi toog naan polygame benn la ak Soleil Levant polygame la ñu toog naan euh, jànkeen production ak polygame benn la xam nga ñoom tamit bu ñu waxee loolu dañuy def ni kon benn lañu kon yu mel ni bu ñu amee te ñoom ñëw ñëwuñu kon dañ jàpp ni kon ñoo ñoo amul jot rek comme ñoom ñëpp benn lañu koy ñii woote ñoo ñëwuñu kon dañoo dañoo jàpp rek man loolu laa ko jàppee ah am déet yow noo ko jàppee. ni nga ko jàppee. booy ba jàppee ko noonu de gën a wóor de <laughs> jàppee ko noonu rek. d'accord tricher moom baaxul wax dëgg yàlla. tricher baaxul nit dañuy wax benn lañ ta fekk duñu benn wala non ñoom buñ dee benn ak buñ dul benn nag laal la wóoru ma man moom xam naa ne maa ñoom benn lañ comme ñoom <laughs> daaw ñoom seen bennoo ñoom la concerné rek mën naa sama bennoo ñoom un la di benn un naka nga dundee bàjjen dégg naa yi ñaari bokk ndey ak baay bàjjen da ko forcé dafa forcé sama bokk moom moom keneen moo doon yaayam mu ñëw sama yaay ne ko yaama ma jur par force ndax boobu man la bëgg a bokkal topp na ma toppa toppa topp ba jël sama biteel bi nga xam ne pa pa kii ma ko joxoon pa gajanga ma voyagé bàjjan rocc biteel bi moo ko may bës bii sama essence lay daw ni di ku ñàkk jom a ngi nii ba pare nag du joxe ba lu mu yor lekk ko bàyyi ma loxo mi gàtt yi siis na iñaan na bon na ba pare di ma liggéey dafa ne yëgu ma ko yow gis nga laa dafa am yenn façon xaatim yoo xam da nga xam ne ay borom baaraam yu gàtt ko xaatim te bàjjen baaraam yi nii la day mu yéen gis nga ak baaraam tànk yi ngeen day sama ndey baaraam tànk tànk bàjjen yi xam nga. man euh, sëriñ moo mi ngi lay liggéey. non yow man may xaritu yàlla yoo xam ne xamoo man sëñ Saalum Touré sama sëriñ man dañ may jékki-jékki di ma wan bàjjen li mu def jël ay nen di ko toj sama buntu néeg dafa ne xamu xaw ma ko jël ay béjjën di ko dugg sama poos yi jël ay xaatim di ko sama suufu njëgënaay yi non li ma la mën a xamal mooy du nit yàlla bu ñu pare yàlla ngeen pare yéen ñoon dee dem safara yéen ñoon ngeen xam ñun ñu dem àjjana. mais daam taasu bi rythme ba mu daan àndal na mu daan neexee ñëpp naan daam gëj nañ koo gëj a gis xale yi ne daam dafa fay xam nga daam ñenn ñi ñu dig déggatuñ ko daal comme ñoom bas cuun ak yooyu ni ñu leen di dégg. mbete ku sëyi woon c'est normal dafa am foo xam boo fa xasee ba jàll jàll nga ko da nga dem ci leneen antam nañ leen. da nga bàyyi. non bàyyiwuma dama ne dafa am loo xam boo fa xasee ba jàll yoon bi dafa guddoo da nga am fooy commencé ba fa ngay yem tey dañu ñaan yàlla gën a yokk moo gën kat ñuy gën a wàññeeku xam nga senegal nag dañuy jaawale client ak client tey jii ñii ñuy wax naan ay ñoom bastung c'est normal ñu ñëw parce que ñu yëfi ñu kese ñoo ko moom ñun dafa fekk am na ñun ñoo xam dañu fi fekkoon ñu necc ñu nekk seen i ginnaaw ba tey ñu ñuy dégg kon nag ñu nit foog ñu ñu ne fi ñeneen ñëw ñu leen di dégg ñun moom ñu yëf yi tey de dañuy ñaan yàlla waxuma la ñoom Bass Thioung ak ñoom Pagaay Mbaye ak ñoom Magay Seck ak ñoom am ndaw bëngoog ñoom Secka lëmbal naa rek ñëpp di feeñ parce que yëf yi du kenn nit moo ko moom ku ci nekk am na lu yàlla def ci yow te boo dikkee nit ñi war nañ la apprécier war nañ la nangul li la yàlla defal tey jii booy ñëw nañ te yàquñu ko am na ñoo xam nag dañ koy yàq ndax xamadi nañu rek la wuñu te ëppal nañu. ñu ci mel ni ñaar moo tax léegi noo du lim kenn koo dugal nga wut. man ragaluma ci kenn de waaye loolu dafa dafa dafa xaw ma diffamation lan la way moo moo moo tegu ci yoon. non léegi kay. taasu yi moo am en tout cas di n'importe moom moo am léegi aar moom comme mango baxal léegi. mais nag am na ñu koy teg ci yoon am na ñoo xam teguñu ko ci yoon ndax ñi la teesee daal léegi ñooy nekk ak yow si scène bi naan à la culotte loo ci mën joxoo leen xaalis bi ñu dem studio sa baay moom ko sa yaay moom ko da nga cee mën a tere kenn loolu xam dañ ne comme géej àcc na nit ñi ñëpp fay rek nit ñëpp fay moo tax di nga lap ak ci yomb lab léegi da ngay xool aar bi dafa yàqu léegi yàqu boo xam yow xam nga ci dara te da ngay benn booy bu jógee fee xeesal jël seen affaire yi ñu def seen tuñ ñu tuddati ripon lèvre xam nuñ ko doon affaire yi du rot mais booy boo ci gis léegi tuñ yi xolleeku mu mel ni ku dëkkoon Allemagne wala ku dëkkoon Paris ci sedd bi demoo fenn nga mel ni ku ñu jël ay deretu ginaar def ko sa tuñ yi xeesal sa kanam xeesal sa loxo yi mel ni ay jigéen te ay góor. léegi nu mu gën a nooyee booy loolu lañ koy defee mais pour pourquoi léegi duñ jug ci lii dina gën a ëppi loxo ndax booy yi ñàkk nañ jom bëgg xaalis te nanguwuñ liggéey bëgg sañse te nanguwuñ liggéey loolu tax nag léegi ñu topp affaire bu yomb bi rek dañ naan léegi kaa ñu dem trafiqué ji wala ñu léegi ñu dem nekk ay yooyu affaire yooyu noonu au lieu de góor. kon yow kon yow nga dem di nekk beneen beneen kii bi sens inverse bi. bu comprendre léegi nga fermer guillemet yi nga uvre ouvrir les guillemets. booy yi amuñu jom de am na ay booy yu ñàkk jom ci nekk booy yoo xam tekkiwuñu dara ba pare maanaam xamadi gi nekk ñoom moo tax léegi man maa ci defal bu ci gën a damay dem marché indiscipline moom 10 000 laa ci jënd ëppal ma jënd 7500 raakaaju 3000 soof moom ma jënd ci ay 1500 yooyu soof na yem mais baa doole moom laay ëpp lu ma ci jënd ndax booy yi xoola boo bëggee bokk ak ñoom langi foog nga dem jënd yooyu marché. ñaar nga jënd ëppal. ëppal est-ce que jënduma ci 16000 da ngeen dof doon rek. d'accord mais tamit ñii lan lan la taxawoon. non non association dafa am. mooy na nooy bi wala na wala na dëgër yow boobu boo bokk. man la yoo xam ne yow moom nooy moom potaas laa si xam ay pommitee rek ma affaire nooy yooyu mais góor waru def yooyu sax góor da ngay war a dëgër këccuwaay yi me ah. mais ne di ànd ay jigéen di dàggasante ci télé yeeg. di def ay yëfu ñàkk ah, fayda yoo xam yi ngay wax am na yooyu la def booy yëg gis nga ñuy def ànd ak ay jigéen non joxe ni ngeen wax nii da nga tuddul tur rek waaye da nga joxoñ baaraam waaye ba dégg man ragaluma yow yooyu turu jaamu laa tudd waaye ñoom xam nañ li may wax parce que tamit buñu demee ba bokk liggéey bi am ñu ko nar a yàq da ngay taxaw nga dénoncé leen loolu du wàññi dara mais lan mooy góor toog ak jigéen di ragajoog di biiñ ak di def seen affaire yooyu mais man mosuma ma wëndeelul ma xol wëndeelu wëndeelu góor moomu ko góor day waaxu laala ñu noonu mbokk internetu Dakar Buzz ba tey ñu ngi taxaw ki nga xamante ni moo di euh, binam binam binam binam binu man nag sa tur bi mënuma ko sama tur bi ngay fowee <laughs> binam waaw binam ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay euh, yaa ngi direct Dakar Buzz nuyul sa fans yi nga xamante ne ñoo lay bëgg ok waaw di nuyu sama fans nekk euh, Dakar Buzz di kontaan ci Dakar bi nga xam mooy télé bu mag bi lu dëgg moom information bu mu joxewul baaxul pour salaaka moo tax mu ñëw ci bis euh, gis nañ ci yaatu tamit parce que neexoon toog fi yéen toog ne mais ñëw ngeen accompagner ñu waaw ñu kontaan ci loolu bu baax di bëggee fan si yëpp nag. ban yëg-yëg am tey ci seen bi. bis bi parce que liñ ci bëggoon lañu am muy réussir xam nga ngénte yomb la ruq boo ko defee yomb la buñ nee ba yenu ko indi ko grand théâtre pour ñëpp la voilà c'est pour àdduna bi yëpp ñëw ci ngénte li looloo tax ñu indi ko fii. bëgg nga daal gars yi niñ leen wuysee est-ce que yaa ngi doon xaar li non parce que surprise day am parce que ngénte bu ñu ko waxee bon kat du di xalaat plus de cent personnes waaw léegi bu ñu demee ba mu fees dell nag moom kon ça veut dire que ni soxla nañ lañu bëggoon am nañ ko. Eh, Birame séeréer nga. waaw man moom séeréer laa. da ngaa mës a def ah mooy séeréer. sama yaay la. macha allah da nga mës a def affaire militaire da nga demoon armée. man mari laa nekkoon. jàkkaarloo ma ne gendarmerie laa nekkoon ah LG yu mbaaw. voilà servir parce que boo xoolee may def sax lii ku dul militaire mënoo ko. ah voilà moom ñu moo jaaxal askan wi leen yéen ñi la jaaxal <laughs> parce que soldat boo xoolee da ngay xam ni soldat li may def civil mënoo koo jàng mënoo koo jàng te jaaroo ko. Mhm. ñaata at nga ko def. bon def naa fa deux ans LGI Mbao. est-ce que yaa ngi am retour ci rôle bi nga xamante ni yaa ngi koy joué. ah bien ay juy fu ne laa koy jotee parce que rendre hommage mais rendre hommage armée bi rek doy na man armée bi laa faral. naka nga def ba dugg ci biir théâtre bi ndax yàgg nga bon théâtre moom yàgg na ci parce que depuis 2005 laa nekkoon Soleil Levant. Ah, yaa ngi woon Soleil Levant ah ay mor député yëpp maa ko suyee ah mor maa yoroon néew bi pa ko yenoo ëmb bi bala may sa pa alma bébé da la yi ma joué bëri na da ngeen may doog a gis kay. xalaat la moo tax nga jékki-jékki rek kon kenn gisatu la joué. maa jékki-jékki woon bàyyi. tax nga bàyyi. waaw nekkoon ci sama liggéey dama doon liggéey. nekkoon ci benn liggéey mu occupé ma mënu woon a kii par la suite laa ne xaaral ma ñëw waaw fii par occasion rek laa ci duggaatee dama ñëw appartement deux laa démarré waatee ñaan waa kii fu mu ne woon looloo ma fi bàyyi. xam nga wax nga dëgg mais ñu ci bari kon bàyyiwuñu la. ñu bëri boo demee seetaan naat di ma la ba beneen la ne maa doon sang saa ci xàmb yi Mor député maa yoroon néew bi Paco bala may sa maa doon policier bi maa ngi mànga si yooyu boobu xale nga. léegi da nga bàyyi Soleil Levant non duñ ko bàyyi parce que Soleil mooy kër gu mag gi bu amee affaire am bu ñu wooyee dañuy ñëw dañuy tourné bàyyi wu ñu bàyyi wu ñu seen série bi polygame sénégalais yi bëgg ko ñu bari di ko seetaan. naturel la ko nit ñi bëggee ak suñu actualité yi nga xamante ne moom la ñuy dund loolu tax nit ñi bëgg ko yow yaa ngi ciy gis sa bopp n'est-ce bu baax des fois ñu def benn action nga ne yee eh, lii defoon naa ko. waaw kon <laughs> lool la naturel bàyyi ko loolu booy rejoindre leen ci oto yi rejoindre leen ci oto bi kii yóbbu na caabi oto bi dem leen ci bi doon ndànk rek ana soxna si bon mu ngi fa ma nga kër ga dégg naa takk ñaareel man mii moom moo la ko wax kan moo la ko waxee ko dégg rek film bi wala dëggantaan jaay man mii amaguma autorisation bi de <laughs> autorisation parentale bi daal amaguma ko <laughs> yow koo dugal ngay wër. non damay laaj rek. mais mais mais Omar Omar jëlal na bindu ni mu taxawee. wala ko lii lii. Adja jë Adja Adja jë kii yoo joxaguma autorisation. ah dama moo la jox autorisation. ah autorisation na kat te bala la koy jox. dëgg la nee mën naa laa may nga dem takk beneen bu la neexee nga dem takk. loolu do am danger mais boo ko surprisé mën na la indil problème. ñu ngi lay jaajëf. kontaan ci yow. jërëjëf Dakar Buzz. <laughs> foofu fan la la jàpp ku la andee. mbedd mi xanaa ci ñi ñëw nañu di. bàyyi ma teel leen. waaw bàyyi leen ma. rajo jàpp ci rek mënuñu ñàkk. waaw léegi. nañu bu baax a baax a baax ndax boo boo boo xewlee benn nit ñëw wala ñaar nit sax santal yàlla bu baax ndax nit sant yàlla weesu di nga am ñaar nit ñu la seetaan wala ñetti nit di leen seetaan mais Sénégal mënuñu leen a fay barke Mouhamed kontaan nañu trop macha allah kontaan nañu. li nga doon xaar daal si bés bi tey gis ngeen. macha allah gis nañ lépp macha allah nit ñi ñëw nañu maire yi nag man maire yee ma ci gën a touché billaahi ndeysaan maire yi ñëw ndeysaan seetaan yëkkat seen alal di maye man man man maire yi dañ ma touché nag billaahi. non tey moom dama jooy sànq ba tey maa ngi jooy nag dama feebar dama sonn. mais nañu liggéey rek yàlla baax na incha allah sant yàlla bu baax liggéey ndey barke baay waaw liggéey ndey barke baay tubarkalla ñaana borom kër. mais tous bi nga indi rek. tent bopp bi ah. léegi non loolu kii rek noo non non bàjjan du bandi. dañuy mm-hmm. dañuy neexal rek man man taalibe Serigne Babacar Sy laa oh. man taalibe Serigne Babacar Sy laa man dama wëyu dama bandi xaw ma fu ñu defee xaw ma fu koy jéemi xëy na nag nit ñee leen yaa man on s'en ma sentir laay def. est que yaa ngi am ay retour yaa ngi génn ci mbedd mi nit yi di wax ngay dégg. noo non non man kon may jàkkaarloog man daan ma bàjjan bandi nga kon ma xeex ak yow kenn def da ngay wax nii rek ñoom xam nañ sama dama band dañu soob nii rek gars gars yi dañuy wax safal nii rek. ak rôle bi ngay joué naka la sa njaboot di dund. non samay njaboot yow man samay doom dama leen a yar man samay doom bu ma toogee bopp bi xaw a jaxasoo dañ may wax ne ma yaay defaral sa bopp bi waaye yow loolu lépp suñu ñun ñun ñun suñu famille dañ ko def nii dañ ko sudee suñu borom kër suñu yaay suñu ñëpp ñun benn lañu am ñu loo xamante ni dañ koy nekk di ko di ko di ko kiiwal wala dara mais man wattu man la saf tent man la neex. maa ko def waaye yow da ngaa watu da ngaa tent xam nga watu wa tent maa watu maa tent man la neex. waxtaan naa ak Dame Sène sa frère. mu ni euh, artiste bu ko doon joxe yow la koy jox. waaw sant yàlla lu ne man naa am. lu ne mën naa am ndax euh, dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla sant suñu waajur yi ñu fàtte waajur yi ak kilifa yi dañ leen di sant bu baax a baax a baax a baax sénégalais daal mi ngi noonu mi moom daal Sénégal mi ngi noonu moom koy loolu loolu la bëgg ci xolam mais tamit nag am na ñuy liggéey de. wallahi am nañuy liggéey non maa ngi liggéey maa ngi liggéey mais am nañuy liggéey tamit aussi. sa diggante ak Wally Seck. man Yacine may sa biggéey loolu tam bàyyi ma sama diggante ak Wally Seck kooku sama xarit la sama lépp la. xanaa oto bi moom nga. bañ a ku looy indi leneen man jëluma jakarta de bala ñu naan Wally bàyyi na jël la jak jëluma jakarta jëluma moto sama oto laa indi. mais oto bi da nga maa waxoon da nga koy génn. ñoo dama ko mujj a bàyyi ndax coono dafa bari. damaa tudd turu biir nekk yëkkatee ko ma turu bi laay baax na oto bi nga xamante ni mu daa mel ni. ana sama nijaay. dégg naa yéen ñaar ay xarit. sama jëkkër waaw ay xarit kooku sama papa la sama jëkkër sama papa ndax euh, sama dafa jàpp sama loxo dénk ma ko kooku sama koo defal ñaar fukki juróom-ñett waaye lu tax man ni ngeen am ba bàjjet bàjjet def ak jëkkëram ñaar fukki at laa jëm ban côté laay laa jaar ban alayaa laa jaar baa ne ñoom ñëpp arrêté nañu fu ma jëm. tey nga nekk aawo macha allah am ñaari rakk ñu ñëw fekk si la yan conseil ngay joxe jamono ji nga xamante ni wujje yi dafa mel ni tendance la rawatina TikTok bi ku génnul feccoo woyoo rek wujje wu. loolu seen affaire la man day wax dëgg yàlla man néew ma ci TikTok bi def loolu ma yor amuñu benn problème man tomatoogul sax man su ma xëyee dem naa ku xëy di dem ku koy ku ko gaar waalante ak koy tiisantile koy waxaat ci si Snap ak TikTok man aw jot ñoom amuñu jot. kon bàjjen mu mel ni ne kon euh, même bul hors série bi da nga man damay jaay cuuraay. go dégg nga gooyo bàjjen. dëkk bi yëngu na gooyo bàjjen. maa ngi tudd dëkk bi gooyo gu neex wax gooyo bu pëndax bu saf saf. Mhm. est que yaa ngi jaay. man. mu ngi jaay ñeneen ñoo xale yi ñoo jaayut waaye man ma kay maa ngi jaay. maa ngi yaa ngi gis sa bopp ci série. ñu ngi sant bu baax. ndax gis nga euh, liggéey bi amul xaalis ay xaalis yëpp détail la tey jii la ngay la ngay la ngay am yaa ko liggéey sa bopp mën nga liggéey ñu fay la nga liggéey ñi bañ naa fay ak sa bëgg-bëgg man yàgg naa liggéey ti kenn du ma fay mais ñi ngi sant bu baax ñi ngi sant bu baax ndax li ñu nit ñi defal rek moo ëpp sax fay gi wallahi azim li ñu nit ñi defal moo fay gi man day wallahi azim giitalu ma xaalis barke Serigne Babacar man xam nga lu ma giital gëm-gëm ak liggéey te sa micro bi tuuti ma yëy ko <laughs> mu mu mu mel ni tey gis na ñu nañu euh, euh, euh, xeesalkat yi ñenn ñi sax la ñuy wax ñiy xeesal ah non non non tudd ma kenn non mais xam nga seen tendance bi dafa bari ñu gis la nga nekk jaman noir macha allah bi ngeen conseil ngay jox xale yi. non man xamul sama problème man damaa xeesal ba bàyyi. Ah. barke yonent bi ma bañ yóbbu la fa ma ah, leen dàqoon a xeesal damaa xeesal man amuñu samay foto xeesal damaa bàyyi bu fekkee xeesal la ko ñu man damaa xeesal ba bàyyi. léegi nag yàlla def na yow sa micro bi naa ko yëy de <laughs> wàcce ko sama sikkim bi la dem yàlla def na diwoo tuma defatuma dara sama karité laay diwoo su ma xëyee sangu pare ci. lu tax nga bàyyi xeesal. lii ma gis ci réew mi aywa teg ma ba ñu dugal bala ñoo di ma teg toon naan bàyyi gën fi wax nangam dama damay tontu. non mais yow sax da nga laax yow lu tax nga bàyyi. maa bëggatul. ndax lan non dama ko bëggatul rek dama jékki-jékki rek man bëggatuma xeesal. kon weexoon nga mën a xeesal. su ma xeesal da nga naan bàggeen bul xe bul bàyyi xeesal barke Mouhamed damaa mën a xeesal. man feeling bu bàjjen koo bëgg. ba itam mag laa nag mag lu mu dëgg ci dëgg ak ñala ju. am ñam. waaye noonu la yàlla baax na. ñun <laughs> dundandoo rek ñu ngi sant bu baax a baax maa leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di kontaan nag surtout ci yéen di leen ñaanal yàlla na leen defal jàmm lépp loo leen liggéey yàlla bu ci ordinance génn ci barke Serigne Babacar yàlla bu ci benn damay te parastamol génn ndax ku liggéey jariñu ce ce travail paye je ne travaille pas je ne paye na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm cameraman yi kontaan naa ci yéen de ah, ah, ah. mbaa ñaaw ma ci fii de xool li ngeen def yéen tamit seen puudar bi bari bu leen ko génne lool moom bu leen ko génne